parce que euh, on est naturellement favori dans le mouvement soo seetloo configuration man tirage bi pare. dafa daal di defaat beneen tirage ci biir tirage bi. donc dama jël Sénégal daal di ko boole ko xanaa RDC mu dal ak Togo pour euh, ci mel ni RDC ak Togo donc équipe yoo xamante ne la euh, xëy na ils sont ils en déclin actuellement. Mm. mais ñu ngi defar waat parce que soo xoolee éliminatoire Coupe d' yi euh, équipe bi ci mel RDC dañu nekk di defar waat ba pare ils ont gagné donc c' est une équipe qui euh, qui n'a pas dit son dernier bi nga xamante ne tamit euh, mos na def coupe du monde tey mu ñëwaat nekk ci poule boo xamante ne je pense que euh, tout va se jouer dans sur le comme ni ko donc c' est des yoo xam ni waruñu leen xeeb au départ mais dans tous les cas c' est très abordable pour le Sénégal parce que gëm naa ne suñu jouer ak suñu valeur sûre gis naa ni les adversaires là mënuñu def mais problème bi nag mooy le nombre d' et, et les aléas liés au match aller-retour mhm. avec surtout le cas du Soudan là Soudan où il y a, il y a beaucoup donc c'est des yoo xamante ne xëy na mën na un euh, créer des des soucis mais bu dee sur le plan footballistique sur le plan sportif je pense que am nañ benn longueur d'avance par rapport à, à ces adversaires là